Euh, Dieydi Cissé euh, ñu ngi lay nuyu di la dalal. Euh, maa ngi lay fay. ngay de formation doon conseil tamit en gestion des organisations ñu door waxtaan wi ak xëyu ndaw yi mu mës doon problème Sénégal tey lan nga jàpp ni moo waral muy bloqué ba ku fi nekk bëgg cee def dara waye mu jëntal ba du antu. waaw li nga wax moom dégg naa ko bu baax Sénégal yëpp dégg nañ ko. xëyu ndaw ñi dafa en fait boobu moom mu mujje te xëyu ndaw ñi du leen lu dul liñ fi fekk ñu jël ñu dajale leen si benn bërëb maanaam euh, ANPEJ ak FONGIP ADPME DER ñoom seen ñu dajale leen ñu ne ko voilà parce que dañoo tasaaroo jeunes yi xamatuñu fan la ñu war a jublu léegi bu leen jëlee ñoom ñëpp dé dugg ci benn bërëb dina gën a yomb waaye pour pour commencer sax bala ñuy tàmbali euh, pôle emploi yooyu fan la ñuy nekk bu dee pôle emploi yooyu sax am na est-ce que pôle emploi ñoo ngi dox quarante six département la ñu am ah léegi euh, Sénégal dëkk la bi nga xamante ne si ay euh, plan lay sukkandiku pour mën a liggéey maanaam nguur gi day toog ñu tëral ay xalaat rëdd ko ñu ne waaw mbirum xëy ndaw ñi lii li ñu def mbirum euh, faj faj bi nii la ñuy def mbirum jàngale bi nii la ñuy def mooy politique publique yi léegi comme que day diis nañ koy toj jox ko ay ay ay ministre ministre itam tojati ko jox ko ay direction direction yooyu tojati ko def ay programme ay projet pour mu mën a egg si askan wi mais Sénégal depuis mu nekk Sénégal ba léegi jeunes dañu am problème xëy léegi la ñu door a xalaat ni waaw euh, xëy yi fi nekk ak njàngum xale yi méngoowul mais léegi léegi lañ koy wax bon loolu loolu loolu rek loolu maanaam dañ ko wax nii rek léegi li am ba am mooy li fi jot a am mais nañ ko def ba pare balaa nga ne naam ne fa euh, man du ma sori 2012 laay tàmbale ba président Macky Sall lu mu wax damay téeméeri junni emploi lay lay def euh, agriculture bi rek maanaam mbéy mi comme que xale yi bëri ñu méttiwul naa ci def euh, trois cent mille mais loolu moo amul eg bu amee sax ñan ñan lañ ko jox ñi ci liggéey ñan lañ problème bi si si mbirum xëyi ndaw ñi mooy kuréel yi ñu fi teg kuréel yooyu ñi si bëri gaa am na ñi siy liggéey may kuréel yi war a euh, jur emploi yi ay politiciens lañ fu dugal. programme yi programme yi ay politiciens lañ fa dugal et puis euh, fii mais président moo gën a xam loolu. c'est-à-dire que euh, kuréel ñoom xam nañ ko quoi c'est-à-dire que en fin de compte dafa am xam nga dafa am ñaar mm. boo loo gis ñaar la yàlla rek mooy kenn dafa am si Sénégal politique. mu beneen bi administratif administratif bi mooy technicien mooy ko ñi xarañ ñi xarañ tout ça là mën liggéey quoi mais aussi dañoo soxla politique bi loolu c'est loolu nekkul lu métti mais boo yebee ñaari sax mais na ñaari ñu xaw a tolloo mais ñoom nguur gi dañoo jël carrément liy jëm ci politique bi rek ñu ne ko acca ñi dëngu ñi nga xamante ne mënuñu du ñu dem ndaw ñi nga xamante ne ñoo ngi leen di jàppale mais xanaa temps yi li ñuy commencé lii yëpp politique la. pour ñu ah ñoo ngi jël ay ndaw waaw coow am na et cetera c'est bi mooy état bi mënu jox liggéey ñëpp lu mu dikk defu ko benn loolu sax garaawul mais mairie yi ñoo ko war a jàppale tamit parce que mairie yi état bu ne dama bëgg a indil xale yi xëy. Mhm. bu dee état bi rek moo ko wax mu toog fu mu toog mais Euh, jeunes euh, ndaw ñi c'est c'est c'est ay ay bërëb c'est ay ay dëkk li ñu nekk. mais ci nan la koy jàppale tamit bu dee. ah voilà merci loolu da ma ko war a laaj en français tamit mais garaawul amu problème naa naa ci tontu gis nga euh, politique bu amee mbirum xëyu ndaw ñi état bi dafa jël département bu nekk si lu mu wax mu teg fa benn kuréel kuréel bi niveau département la mairie si département li ñu nekk mairie bu nekk dafa war a sànc benn kuréel. ci mairie mais encore maanaam c'est pas encore institutionnalisé maanaam c'est pas encore formel mais euh, bërëb boobu mën nañ ko tuddee bureau de l'emploi local waxuma bureau de l'entrepreneuriat local de bureau de l'emploi local bureau emploi local boobu mais ñaata chômeur ñoo fi ne université ay juriste ay économiste ay ay du jeex euh, fonction publique locale lu muy def fii kenn xamul sax ndax te démarré na wala démarré wul balaa ngay na créer ay mais euh, pour que les gens puissent euh, nit ñi mën a dem liggéey sax déjà léegi mairie bi boo amee bureau de l'emploi local loolu tamit doyul parce que nit ñi nu ñu xëy dem mairie ba. mairie bu nekk mais sa sa gox xam nga quartier yi fa nekk euh, quartier bu nekk xam nga chef de quartier bu fa nekk mais yenn quartier yi boo leen wooyee chef de quartier yi bu dee bëgg nañu liggéey ñi bàyyi nag ñu naan kii opposition la kii pouvoir la lii mbirum nation la. non il faut que ñu arrêté loolu sinon duñ ci génn duñ ci génn jeunes yi ñooy sonn. dem ñu dem demaat dem demaat et puis du day nag dañuy wër rek di tourner euh, bureau emploi locale bi dafa war a jël chef de quartier yi mu chef de quartier bu jàngul mu mu jël ku koy suppléer ku koy ku koy ku koy ne ci wetam ñu wan ko naka la lan la politique bi wax naka lay jëlee info naka lay mun a jël information ndaw ñuy feneen ci ci quartier am mais boobu ci espace de koy def benn bërëb la koy def ci quartier am jarul sax ay bureau affaire yooyu bu jële information yooyu association yaa ngi koy def mais dafa dafa ñu ko defee moo structuré wul. dafa informel mais ni nga ko war a formaliser information yi bu ñëwee ci bureau emploi local bureau emploi moo koy jotali pôle emploi entrepreneuriat parce que mairie bi waxul ne day créer emploi mais au moins li état bi wax da koy créer mais mun a egg ci fuutanke bi mu mën a egg ci baalbaaw bi mu mun a egg ci je sais pas moi. ah dans les fonds ku nekk mun ci ku nekk mun ci daj waar gis boppam léegi kuréel yi état bi créé yi bëri yi daa mel ni moom dafa jaxasoo. parce que non état bi ci boppam moo jaxasoo. Ah, waaw non xam na fu muy taxaw mais dafa jaxam mu nga xam fu ngay taxaw nga jaxasoo. waa jaxasoo bi lu ko waral parce que ñoom dañuy euh, débrouiller wu. xam nga sénégalais débrouiller rek la xam. débrouiller bi mooy lan mooy dañuy euh, ndaw ñi am nañu problème am nañuy xëy lañuy ñuy teg benn kuréel mais xamuñu fu ñu jëm léegi en fonction euh, si si bu ñuy teg seen tànk di dem. li ñuy gis ni ah mbir bi am na naka li ñuy def ñu xoolaat li ñuy defaat c' le système de la débrouille et puis ça c' est une c' est dans la politique publique aussi c' est une c' système la système de la yi la quoi doo lu ñu amuñu. Euh, euh, même planification boo amee manière théorique lay doon Sénégal loolu mooy seen problème planification stratégique Sénégal bu la toogee bu la ne léegi léegi bu ñuy génnee télé bi da nga naan Sénégal yi ndaw yëpp am nañu liggéey bu ñuy waxee tëral la plan bi da nga naan Sénégal yëpp am nañu liggéey. mais boo leen jëlee ñoom nga nga yóbbu leen euh, jëdd caare kaw parce que foofu laa xam quoi mais dañu ñëw sax génn seen oto yi dañuy toj seen oto yi. ñu ne pas accès waaw. Euh, ci discours am euh, ci at bu bees bi njiitu réew mi doon ci xamle ne programme d' appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales teg ko ci benn koppar gu takku jëm ci deux mille vingt ba deux mille vingt deux xamle na ko ne ñu ngi koy waajal ndax jàpp nga ne wàllum entrepreneuriat tey mën naa jàppale. comme tey état gis na ne euh, mënul dem mu toog jàngataat li nga xam ne mooy politique de l'emploi ndax jàpp nga ne bu duggee tey ci entrepreneuriat euh, dina xàlli yoon wi euh, li nga xam ne moom moo ko tere woon àgg fu mu jëm. xam nga entrepreneuriat bi balaa ma ciy sori. xam nga fii dégg nañ fii délégation à l'entrepreneuriat rapide. Mm-hmm. bon léegi ñoom des fois si mbirum équité territoriale bi. Mm-hmm. lañuy naan waaw ñu ñoo ngi liggéey d'accord bien Sénégal du Dakar rek c'est vrai ah boo demee Kaolack Fatick euh, tout ça là euh, si Sénégal la bokk mais yow yaa ngi fii mais déjà fii euh, na wax wax naa la ko sànq Sénégal pourcentage territoire bi par rapport à pourcentage population bi parce que Sénégal dakaar la c'est ça aussi il faut pas fuir les responsabilités naan Sénégal Dakar rek population bi nekk biir dakaar amul fenn ci territoire bu ndaw boobu léegi entrepreneuriat boobu ñuy wax mais ñan ñu jot financement je vous mets au défi léegi léegi ñu wàcc fii ngeen ràngalee cent jeunes kenn sans yi au hasard doo leen gis kenn ku naan am na financement DER mais DER kan lay financé ba président du ko jàppale nous on sait pas bu ñu gën a liste tamit ku ñu wax ni liste boobu am na c'est que loolu dafa war a nekk li ngi li li ñuy daj warul nekk lu ñuy théoriser non non non ko quand il y a de l'emploi des jeunes mais ça se sent temps ñëpp xam nañu UCG moo yëngatu waaw léegi lay yëngatu Sénégal dafa yàgg tilim ba léegi dafa tilim encore mënul set UCG mënul setal gox yi de parce que axe yu mag yi lay jël il faut que mooy li mu wax sànq euh, outil euh, jumtuwaay nga xamante ne mairie bi da koy jël moom tamit mu ci muy muy gunge état bi boo demee marché Colobane suba teel mais doo fa bugg sax dugg te ñaata commerçant ña fa nekk li ñuy génne ci xaalis ñoom ñu sax exiger maire bi ñu ne ko suñ fi fii dafa dafa war a seet tali yi rek la defar donc entrepreneuriat bi baax na mais li ñu fi jot a def laa wax loolu nañ ko évaluer nañ ko suivre nañ ci waxaat damay topp di créer di créer di ñu joxaat ko ay nit nit politiser waat ko dugal fa ay non mais c'est c'est extraordinaire. kon daal politisation bi euh, gis nga il faut que ñu bàyyi di xalaat ni sax ni administration bi ñëpp ay ay politiciens lañ gis nga y a ce qu'on appelle l'élite administrative mais ñoom c'est c'est c'est des hauts cadres. Mm-hmm. mais est-ce que ñoo ngi leen di bàyyi ñuy liggéey mais xoolal ñu nekk ci terrain bi rek ceux qui sont visibles waaw ah ñi ñi ngay gis. mais pour l'administration mi ngi dox ministre yëpp sur ñoo le terrain ñaan ñoo nekk ci yi mais c'est des c'est des grands techniciens des secrétaires généraux nga xamante ne ñoom ñoo yor administration bi mais malheureusement ak bon malheureusement heureusement parce que nous sommes en démocratie il faudrait que les gens puissent voter et choisir leur maire mais même même même même ce choix boobu sax entrepreneuriat da nga koy jàng mais jàng bi bon c'est vrai am na ñi nga xamante ne mosuñu jàng nekk ñu ay entrepreneur man wax waxuma ni baax na waxuma ni baaxul man li fi ne ba pare. loolu nañ ko réglé ba pare parce que loolu bu ñu ko réglé woon du ñu fii. ñu consolider ko. ñu wax ci euh, lii di location bi ñu gis ne fépp féppay métti euh, ñii di bailleurs yi ñoo ngi yuuxu gannaaw bañ fi tegee loi bi bëgg leen xëcc ci benn mbir ñii di locataires yi ñoom it euh, jàpp nañ ne fu mu nekk nii seen bopp yi lañ jël teg ci suuf tey fan nga foog ne foofu lañ lajjee. Sénégalais bu am trois cent mille francs buy fay logement Sénégalais bu am cinq francs buy fay logement wax dëgg yàlla kooku bu ne loi bi dafa cher na ko war a jël jox ko dix coups de cravache. mënul dem jël waaye bu ko bu ko ah, moo bëgg standing. waaw ouais, mais je, je veux dire c'est je venir maanaam moomu am na lu muy fayee loolu warul jooy après naan dafa loyer dafa cher parce que xam na poche fu mu toll. lu mbirum cheraayu loyer bi mooy sénégalais bu neew doole bi kooku lañ kooku mooy kooku mooy gis cheraayu loyer bi c'est que du ñu déglu ñuy wax cheraayu loyer bi moo ñu naan man 35 000 francs laa fay man 50 000 francs laa fay benn chambre rek mais parce que dafa métti ci ñoom c'est ça ñoom ñu ëpp ci population bi. mais boo demee jël kuy fay ay million si appartement am mais kooku boo ko nee dama lay wàññi sax cinquante pour cent mais na nga koy na nga koy def ay retaan ñoom faut qu'ils aillent vers la bonne cible ñi nga xamante ñoo soxla loolu si ñooñu la ñu war a dem te ñun ñoom ñëpp xam nañu fu ñu ne. ñoom xam nañ ko mais ñu fa dem ah bu ñu demee instant yi ñu toj seen oto wu ñu seen bopp di lan lañ fay def nañu dem si banlieue bi dañuy dem si zone euh, yenn zone yi amuñu fa sax accès demul man de mosuma leen gis. te ñoom ñooy toog naan waa man maay représentant fii représentant fa du lu ñuy wax léegi loi bi nga xamante ne 2014 bi c'est 03 c'est pour euh, kër yi nga xamante ne calculé wuñu ko sur suivant la surface corrigée waaw surface corrigée bon mooy ñu xool kër gi fu mu nekk bon évaluer pat euh, kër gi lu mu mel léegi ñu xayma loyer bi même même loolu sax loolu dafa loolu dafa sori. décret 2014 144 mais am wax na li ñuy calculer loyer mais loolu bureau de contrôle du loyer bi nekk impôt moo ko war a def ministre du commerce da ci war a wax ministre des finances da ci war a wax c'est complexe collectivité territoriale da ci war a wax et puis loyer bi day cher Sénégal c'est normal Sénégal sa programme 100 000 bi xanaa fer bi sax fer bi mais dañ koy importer fii fer am na fi. Sénégal aussi bëggul bëggul bëggul boppam c'est-à-dire que yéen ñenn ci boppam ma bëggul sax laa bëggoon wax quoi pas ma yow bu la joxee li nga xamante ne typiquement sénégalais la da nga koy bañ. da foog ni li jógee fay rek moom mooy lu baax. o mais bon c'est c'est ça et puis on n'a pas aidé aussi les artisans pour ñu mën a mais c'est que Sénégal pays pauvre la. il faut que nit ñi xam loolu bu comme que pays bi ñëw vraiment politique am boobu mu xam li mu di jàppale ci solidarité bi. voilà pour mu ñu mën a voilà attu wa wàññi euh, dangar bi quoi. parce que instant bi ça ne va bi moom loyer bi pour mu ñeen jékki-jékki ñe ne nga koy wàññi day métti. léegi bàyyi bailleur da kay bañ locataire bi tamit buñ ko ne dañ ko yokk du ko nangu organe de régulation boobu ñu wax président sax du ko tëb te daf ko moo moo ko wax mu tëb ko parce que bëggu ci wax léegi dafa am agenda am déet dafa am agenda am agenda mooy moom agenda am la am na ay soxla euh, ministère yi am am nañ seen agenda dafa jàpp ni instant yi boo du ci wax mais comme wax na ko non da ngay def il faut mu def organe de régulation bi ah. <laughs> waaw non dina ko def. <laughs> Dieydi Cissé ñu lay jaajëfal bu baax a baax ngay juriste de formation conseiller en gestion des organisations.